partisans ay journalistes partisans journalistes partisans lañu waaw kay wax ak homme politique journaliste di ko tontu c'est honte dafa ñaaw yéen war nañ leen seggaat quatre-vingt-dix mille laaj tribunal bi yëpp ay avocat lañ léegi lan lay daw lan lay daw lan moo tax nanguwul ñëw affronté xale bi vraiment bëgg cee réew mi di làkk-làkkal di daw daw Ousmane Sonko ñëwal nga siggil say jabar ñëwal nga wuyu nga siggil say jabar góor ca wax ja da ne woon Adji Sarr bépp karaw bu mu manqué ci moom da ne woon pare nga pour jàkkaarloog moom ndax complot la ñun sénégalais bëgg nañ xam complot bi nan la demee ñun sénégalais bëgg nañ xam ndax complot la wala du complot ñëwal nga siggil partisan am ñeneen de déedéet mais na ko def ngir jabaram ak ay doomam na ñëw siggal jabaram ak ay doomam bu dee def lu dara na ñëw wuy xale bi waaw. en tant que jigéen nga gis ne ne Adji Sarr façon wax bu nekk wax nañ yow nga am fi di défendre Adji ci réseaux sociaux lan moo waral loolu. parce que dama gis ne Adji sénégalais la juróom-ñaari maamam sénégalais la ko Ousmane Sow defu fi defu fi lu fi musta am waxu fi tamit lu fi musta am defu fi lu fi musta am waxu fi tamit lu fi musta am sénégalais la comme sénégalais yëpp di laaj droit am nañ ko delloo ay droit am voilà merci beaucoup jigéen ñi nga xam ni euh,